bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ci garabuk tuuba ci xaaju juróom benneel bi sëriñ tuuba xaada loxo allahu maxtaara loxo nee na ku soxla woo ndigal ak teral képp moo koy dikkal kuy soxla woo tere yi mbugal rek moo koy dikkal loolu mi ngi ci xatu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy cent quatre-vingt-dix-neuf sikk ndax xarab bi la bind wala dañu ko soppi ci xarab wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaar nee na maa ngi leen di dénk laa biir dale ko ci képp ku gis lii bàyyi leen jaw dee leen ko moytu te daw xayi bi te bañ a tudd xayi kenn bu leen lor kenn ci seen làmmiñ ak seeni loxo bu leen seytaane woowee bu leen ko wuyu ndax ci lu leen di jëmale sawara ak gàcca rek la leen di woo bu ngeen bëggee xam wooteb saytaane da ngeen di settantal bala ngeen a dem ci mbir da ngeen di settantal bala ngeen a jëm ci mbir lépp lu toq ci seeni xel te génnul iman islam insaan wooteb yàlla la subhanahu wa taala lépp lu génn ñett yii wooteb saytaane la yal nañu ci yàlla musal bu leen lekk lu xaraam ak lu lënt ku lekk lu haram du mën a def lu dul lu haram dee leen doyloo xamu yàlla subhanahu wa taala bu ngeen bëggee werante wala biijoo képp kuy waranteeg yéen bu fekkee yéen a nekk ci ak dëgg bu leen ko tontu bu fekkee yéen a nekkul ci ak dëgg tuub leen kon sunu boroom dana leen jéggal suturaal seen xawra dee leen def lu baax ndax ngeen texe loolu mi ngi ci xatu ñaar téeméer ci diwaani jasaw sakkoor wala alam sëriñ bi xaada lahoo laaw maxtaara lahoo bi mu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama lii la wax li tax ma def téere bi tudde ko mañ maun mañ maun nooray ni fii fawaidi daare ni fi leere adduna daje ak yu ëllëg ak seeni njariñ damaa gis nit ñi bëgg ak jaamu lool téréer lool tàyyel lool mel ni man maa ngi ñaan sunu boroom mu def ko muy téere buy sabab sunu mucc ëllëg ci mbugal te may nu ndimbal moom mi am kàttan ak pexe lii njariñ la gëm dogal bi ñetti xaaj la bu njëkk bi mooy nga gëm ni lu am ak fu mu mën a ame yàlla subhanahu xam na ko te moom la neex mu door a am wuuteeg alxadariyatu ñi nga xam ni dañuy wax ni dogal yi ginnaaw bi ñu amee la leen seen boroom door a xame noona ñooñu ay yéefar yu wér lañu ñoom laata imam Shafii radiyallahu taala anhu di génn àdduna jeex nañu takk lu mat juróom ñaar fukki yonente rëbbu na leen yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi na bu ñu tawatee bu leen kenn seeti bu ñu faatoo bu fa kenn teew ñaareel ba mooy gëm bu wér ni sunu boroom moo bind nit ñi ak seeni jëf wuuteeg muxtasili yiy wax ni sunu boroom moo bind jaam bi waaye jaam bi mooy bind jëfi boppam ñooñu sunu kéefar am na ak wuute waaye alxuraan weddi na seeni pas-pas ci ay bërëb yu bari mel ni wallahu xalaxakum wa ma taamaluun ak wallahu xalaxa kulla shay'in ak yeneen bërëb ñetteel ba moo di nga xam ni yiw ak ay ñaari mbindeefi yàlla lañu subhanahu wa taala wuuteeg almanawiyatu maam almaniyu fenkat boobu di wax ni lëndëm moo bind ay alquran weddi ko ba mu ne wa jaxala zulumaati wa nuur su ko defee ñett yooyu ku leen gëme noonu ab jullit la ku leen gëmewul noonu ab yeefar la lii njariñ la ahlu sunnati ñoom noonu ma waxal la gëme dogal bi dogal bi nag am na ñeenti xeet bu njëkk bi mooy dogal bi ñuy tudde xamuk sunu boroom boobu mooy dogal bi jiitu ci lépp looloo tax ñu naan wilayetu ko goo gis ak jagle moo ko jiitu sunu boroom nee na yoo fa ko anhu manu ufika ci max naa alxuraan ku ko gëmul ci àdduna fekk na sunu boroom dogal bu yàgg ak ñàkk gëmam yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa ku faatu ku nekk fekk na yàlla subhanahu wa taala ak faatoom ñaare bi mooy dogal bi yàlla subhanahu wa dogal bind ko ca lawhul booba mën na soppi ko ndax yamxu llahu ma yashaau wa yuthabbit wa indahu ummul kitab abdullah ibnu omar radiallahu taala anu daana wax buy ñaan sunu borom boo ma bindee may ko texee di yàlla nga ko far te bind ma may ko texe ñetteel bi mooy dogal bi ñuy dogal nit ki bu nekkee ci biirum ndayam ndax malaaka mi dañu koy digal mu bind wërsëgam akub digam akuk texee deem akuk texeem ñeenteel bi mooy dogal bi nga xam ni moom la ñuy tudde indi dogal yi ci seeni waxtu ndax sunu borom subhanahu wa taala bind na lépp ba noppi waaye lu ci nekk da ko wutal waxtu su waxtu wa ak mu andiko ko la ci al ibris bu yoddaaliyu radiallahu taala anhu lii njariñ la nee nañu yowmal xiyaamati am na téeméeri junni tiit tiit mu nekk moo gën a metti mettitu ku bëgg sunu borom musal la ca del wax baat yi suba ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل ضيق حسبي الله ولكل بلاء استعنت بالله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل شدة ورخاء الشكر لله ولكل نعمة الحمد لله ولكل خضاء وقدر توكلت على الله ولكل سنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لي نجارين لا كبغا جيس يونانتبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسلم نوح لي قدك أجم بيتد اللهم إني أسألك بقوة الربوبية وحسمة السمدانية وصلوة الألوهية وحسة الجبروتية وخدم الفردانية وقدرة الأزلية أن تصلي وأن تسلم على سيدنا محمد وآله وأن تريني وجه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم lii njariñ la ku am loo ragal jàngal li ilaa fi quraysin juróom ñaari yoon ak ñaan gii allahuma innaka aminun min kulli shay'in wa kullu shay'in xaa'ifun minka fa bi annika min kulli shay'in wa khawfi kulli shay'in minka amini mimma akhafu innaka ala kulli shay'in qadir ku ko def dana am kóolute ci lépp lii njariñ la guddik fukki fan ak juróom ci baraxlu def na ca jàng ci bu njëkk bi boo koy jàng da nga ci yéene gudd fan bu ñaareel ba am lu la doy ba doo soxlaal mindeefi bu ñetteel bi nga yéene ci jeñ balaa yi bo noppee jàng ñaan gi allahuma yaasal manni wala yumannu alayhi wa yaasal jalali wal ikram wa yaaza tawli wal in'am la ilaha illa anta ظهر اللاجئين وجلد المستجيرين ومأمن الخائفين أسألك إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا علي في الرزق الطمح بفضلك شقاوتي وحرماني وإقتار رزقي وأثبتني في أم الكتاب سعيدا مرزوخا موفقا للخيرات فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لينجر الله كبغة دباتل bëgg نياري ويجرم ginnaaw bu ñu faatoo dangay julli ñaari rakka guddik alxamis rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon kursiyu ak lexlaasi ak fàllaxi ak naasi lu ci nekk juróom yoon boo neppee jéggalu yàlla subhanahu wa fukki yoon ak juróom julli ci bi sallallahu taala alayhi yoon ak juróom jox ko hadiye sa ñaari way jur lii ku ko def mel na ni ku topp ñaari way juróom namu leen war a toppee lii njariñ la ku julli ñaari rakka ci guddik aljuma bu ci nekk mu jàng ci fatiha benn yoon ak iza zulsilati fukki yoon ak juróom sunu boroom dana ko musal ci tancuk bàmmeel ak xatam te mën na ni ku wàcc fukki kamil ak juróom lii njariñ la yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama masna wax sayyiduna ali karramallahu wajhahu ni ko bu ab seet duggee ci sam nek na nga summi ay dàllam raxas ay tànkam wis ko ci ponkis néeg bi boko defé sunu borom dana fa wacce juroom ñaari fukki yermane ab seed war nañu koy téré ci ay bisam gu ñëk muy naan soow mu wex ak binegar tay baña lek pom ndax dañuy téré am doom ma ngi lay digal nga tek sa loxo ca kaw boppam jang ayatul kursi ak yasin lu ci ne ben yoon ak qul huwallahu ahad ñett yoon wax li allahumma anta rabbi wa rabbuha wa fiq bayni wa baynaha innaka ala kulli shay'in qadir وارزقني منها رزقا واسعا إنك على كل شيء قدير وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bul booloog moom mukk te waxoo bismillahi rahman rahim boo ko deful seytaane day ànd ak yow ci sa alal ak say doom bul xool am payam ndax day waral boo ca amee doom mu gumba bul waxtaan ak moom ci biir booloo gi day waral boo ci amee doom du mën a wax bul booloong moom ci ñeenti tank loolu jëfi mbaam la lii njariñ la jigéen guy matu boo ko bindalee ci ay ci am ndab isa sama shaqat ba ca wa alxat ma fiha wa taxallat ak isa sulsilati ba mu jeex ak lii muy waladat xannatu maryam wa waladat maryamu isa uxruj ya waladu adxuuka yaa waladu def ca ndox wis ko ca biiram danal daal di am doom lii njariñ la lu aju ci fatiha sunu borom nee na wala xada aataynaaka sabxam min almasaani almasaani nag mooy fatiha li tax mu tudde ko fatiha moo di li ñu koy jàng ci ak julli ay yoon fatiha juróom-ñaari laaya la bu ci nekk di tëj ab bunt ci bunt sawara yii hawiya jaxim sair soqar xutama lawa jahannam jahannama mooy sawara si nga xam ni borom bakkar yu mag yi tuubul ci julli di ñoo fay dugg ba keroog ñuy set ba tey faatiye juróom ñaari aaya la yoo xam ni ñeent yi day tagg yàlla subhanahu wa taala ñett yi di ñaan ndax alhamdulillahi rabbil alamin mooy tagg gu mat gi nga xam ni ku dul yàlla subhanahu wa taala yeyowu ko moom mi nga xam ni moo moom lépp bind lépp di wërsëgal lépp di yéwénal lépp tey ak ëllëg ci ak baaxam arrahmaani mooy ki nga xam ni mooy yërëm ñëpp ci adduna jullit bi ak yéefar bi loolu moom moo ko jagoo kenn fekku ko ci arrahimi mooy ki nga xam ni mooy yërëm jullit ñi ëllëg maliki yow mi diini bis bi nga xam ni lu dul diine du fa jariñ te mooy alaxira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow la ñuy ñaan nga may nu kattan ci jaamu la te musal ñu ci mooy la ihdina siratal mustaqim yal na nga taw feexal ci yoonu njub te moo di yoonu xam ak jëfe ah, yoon yi daa bari lool waaye ku aw ci yoonu njub danga nga taseeg sunu borom ci xol bu sedd ak mucc ku ko deful xalku ndax wépp yoon wudul yoonu njub am na saytaane su fa nekk suy laate ñaari yoon ñoo am yoon wii ci adduna ak wa nekk ba ëllëg képp ku aw ci yoon wii ci adduna bu ëllëgee nga mucc ca woowee te moo di siraat siraat allasina anamta alayhim te moo di yoonu yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ak waliyu ridwanullahi taala alayhim xayril maxdoobi alayhim waxuma yoonu ñi yàlla subhanahu wa taala mere te ñoo di yahud yi ak nasraan yi wala daalin wala ñi nga xam ni dañoo réer yoonu njub te mooy ñi mel ni almuxtasila yi ak xadariya ak jabriya ba tey fatiha xaraf yépp ñi ngi ci ba mu des juróom ñaari xaraf yu ñu yu ñu tomb muy jiim alxaa ak za ak ta ak wa ak fa ak shin li tax ñu ci dañoo wàcc ci ak tëkku ndax jiim mi ngi jóge ci aljusuwu te mooy sukku ci sawara ci ay bëti woom sunu borom nee na wa nasaru zalimina fiha jusiya te képp ku mokkal fatiya ak maanaam doo sukku ci sawara alxaawu mi ngi jóge ci alxaybatu te mooy sooy sunu borom neena na waxad xaaba man dasaaha te ku mokkal fatiha ak i du sooy ëllëg azayu mi ngi jóge ci zalsalatul xalbi te mooy baj baji xol sunu borom neena na wa zulsiloo zilsalan shadida te ku mokkal fatiha ak i du am baj baji xol ëllëg azayu mi ngi jóge ci as te mooy mbugal sunu borom neena la ta doxal yawma suburan wahidan waaxidan waduhoo subooran kasira te ko mokkal fatiha ak manam du gis mbugal ëlëk awwaa'u mi ngi jóge ci azulmu te moy togn sunu borom neena wala tazidi zalimina illa tabara te ku mokkal fatiha ak manam du gis lolu ëlëk alfaa'u mi ngi jóge ci alxawdu fi khusran te moy perte sunu borom neena innal insana lafi fi te ku mokkal fatiha ak manam du gis ak perte ëlëk ashinu mi ngi jóge ci shararun nari te mooy ferñeenti sawara sunu borom nee na tarmi bi shararin kal xasri te ku mokkal fatiha ak i maxanaam du gis ferñeenti sawara lii njariñ la imaamu shafii yu radiallahu taala anu bi mu faatoo am na ku gént di ko laaj nan la sunu borom def ak yow mu ni ko jéggal na ma ci sababu julli gii ma daan julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi julli gi mi ngi اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku am lu baax loo daan saxal moo xam julli la wala koor ba mujj nga màggat wala nga tawat wala nga tukki ba defoo ko du tee ñu lay bindal tuyaaba ja lii njariñ la aaya bi muy wala tamu dana aynayka ila ma matana bihi aswajan minhum zaharata alhayati dunya linaftinahum fi wa risqu rabbika khayrun wa abqa وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ku ñuy wax hakim neena na ku ko bind takk ko boo amul soxna da nga ko daadi am da nga daadi am soxna boo bëree looy fàtte doo too fàtte boo tawatee da nga wér boo ñàkkee da nga womal lii njariñ la kaaraangel maris mooy weru mars mi ngi nii da ngay jàng bismillahi rahmani rahim téeméeri yoon ak subhanallahi alazim bismillahi allati la yaduru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim téeméeri yoon laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim téeméeri yoon ak fatiha juróom ñaari yoon inna ansalnahu ñaar fukki yoon ak benn ak allahuma salli ala muhammadin nabi lumi téeméeri yoon ak subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñeenti yoon lii njariñ la kaaraangel ab ëmb mi ngi nii bu ëmb amee ñetti weer da ngay wax abdullahi ibnu omar abdullahi ibnu mas'ud abdullahi ibnu subayr abdullahi ibnu salaam abdullahi ibnu sayd abdullahi ibnu makkatum radiallahu taala anhu tifli bu doom ja juddoo góor lay doon te dana doon boroom xam-xam te saydaane te saytaane du ko laal insha allahu taala cheikh sidiya mu mag ma nee na ab ëmb bu amee ñaari weer wala lu ko ëpp tuuti nga bind lii muy wallati ahsanat farjaha fa nafaxna fiha min ruxina wa jacalnaha wabnaha ayatan lilalamin inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fabudun wa taqattacu amrahum baynahum kullun ilayna rajihun takkal ko jigéen nga lu tolloog ñeen fukki guddi bu doom ja juddoo ñu takkal ko ko loolu dana wattu ëmbu ba dana wattu doom ja ku ambu ku ko bindal lii mu takk ko ambu ba du yàqu wala bisoo fii fii kahfihim salaasa mi'ati sinin salaasa ati sinin sinina wasdaadu wa tisha qulillahu a'lamu bima labisoo loo xaybu samawaati wal ard ba tey shadidu ku ko bind ci xaatim bii takkal ko jigéen gu ëmb ambu ba du yàqu bu soobee yàlla subhanahu wa taala dootu yàqu mi ngi nii mooy ba tey ñeenti kër nga koy def def sadidu sin def fi del def ya def del boy ñëwaat ci kër gu ñëk nga njëkkee del tek ci ya tek ci del tek ci sin su toy kër gu ñetteel gi nga njëkkee ya tek ci del tek ci sin su toy tek ci del kër gi ci suuf nga njëkkee del tek ci sin su toy tek ci del tek ci ya kon ñenti kër lay doon shadidu shadidu arafu sin ngay ba ci ñaareel ba del ngay njëkke koñum ñaa ñetteel ba ya ngay ko ñum ñeenteel bi ya ngay del ngay njëkke muy saddiidu ba tey ku bind sóoratu yuusuf wenn xara farucca takkal ko jigéen ju ëmb dana am doom ju góor ju rafet te yàlla subhanahu wa taala dana ko musal ci lépp lu mu ragal boroom ar rawdul yaanex nee na ku bëgg doom ju góor boo booloog sa soxna ba noppi na nga ko digal mu tëdde wetug ngay jooram ku bëgg doom ju góor bu sa soxna ëmbee na nga tudde ëmbu ba muhammad sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam li jàppandal matu ibnu abbas radiallahu taala anhu nee na yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na jigéen ju toll ci matu te mu jafe nañu ko bindal lii ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha laqad kana fi khasasihim ibratun liwla albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ci ab ndab def ca ndox mu naan ca la ca des ñu wis ca biiram ak fayam ba tey nee na isa alayhi salaam mas naa romb aw nag wuy am doom mu jafe mu ni ko yow yonante bi yàlla bi dooma ñaanal dooma ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu génn ma ci lii ma nekk mu daal di wax lii moom isa dani yaa xaalixa nafsi min wa yaa muxrija nafsi min nafsi wa yaa muxallisa nafsi min nafsi xallisha doom ja daal di judd fa sansa mu daal di koy ndokkeel ibnu habas nag radiallahu taala anu nee na jëpp jigéen joo xam ni génnu doomam daa jafe nañu ko bindal baat yooyu yii lii ak mottali la ku am doom sunn la nga wax lii boo koy tudd allahuma lak alhamdu ala ma aatayta wa awlayta wa asdayta allahuma sidna wala tanxusna wa akrimna wala tuhinna wa aasirna wala toosir alayna وباسمك وباسمك الكافي اكفنا اللهم اجعله برا تقيا ولا تجعله فاجرا شقيا دادي نود تشا نوب نداي جور با يقام تشامون با تك سا لوخو تشا نقتال با واخ يا بر جوروم ñaar yon ak بسم الله ارخيك ارخيك من كل داء بسم الله ارخيك من كل داء يوصيك والله يشفيك وينجيك wa yaj'alul barakata fika an allah nabatan hasana muslayul gone yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama muslay gi la dan tifli hasan ak husaynu radiallahu taala anhuma uhizukuma bi allah taama min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin laama Nena ibrahim alayhi salam mom la dan tafli ismail ak ishaqa nee nañu raqibu ku ko wax juróom ñaari yoon ci mbir mu mu mën a doon moo xam alalam wala ak njabootam yàlla subhanahu wa taala dana ko ca defal kóolute ku jàng yaa barru juróom ñaari yoon ci bopp gone dénk ko yàlla subhanahu wa taala dara du ko lor ba ba muy nekk mag bu doonee mag di ko jàngal boppam melaw siyaare bàmmeel ak ñaanal ku faatu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na nit ki bu faatoo dana woote junniy woote naan yéen sama doom yi yéen sama mbokk yi yéen sama xarit yi sarax leen ma doonte benn tibb la walla wenn sagar walla genn ñaan ndax yàlla yërëm ma ci nun dong ci pax mu xóot te xat diglu leen li may wax bala ngeen a ñëw fii loolu ngeen yor yoroon nanu ko sàgge na ko ba ñëw fii ñu dara al-Yaddaali yu radiyallahu taala anhu nee na ci xaatimu mu ñi faatu li ñuy gën a bëgg mooy dellu si adduna doonte wenn waxtu lañu fi am ndax ñu mën a def lu baax lu leen di jariñ bu ñu delloo kon yow mii dund war ngaa farlu ci sag dund bala moo wéy tey sàmmoonteeg sag sag sag biir tey wattu say cër ak say noyyi ndax noyyi gu nekk day mel ni wurus woo xam ni mën nga cee amee koom mu bari mu dul jeex ba faw te nga xam ni bàyyi ak noyyi mu dem ci lu dul topp yàlla subana wa taala wala mu dem ci ak mooy yàlla subhanahu wa perte gu rëy la ëllëg del dundal sa waxtu ci naafila guddi ginnaaw faratay ak saraxe ak koor ci bis yi ñu sopp ak wirdu ak sikkar ak xalaat ginnaaw boo jàngee ba noppi te lépp looy def nga di ci yéene aw yiw ak di bégal julli ñi di leen defal aw yiw te wut dog boo saxal di ko sellal di ko nëbb nit ñi ndax lu ñu xam li ci ëpp du bari njariñ ëllëg imaamu xasaaliyu radiallahu taala anhu nee na ci ak tibrul masbuk abdullah ibnu omar radiallahu taala anhuma ak ñu bari ci ay mbokkam ginnaaw sayduna omar radiallahu taala am nañu lu mat fukki at ak ñaar di ñaan yàlla subhanahu wa taala ngir mu wan leen ko ci ay nelaw ba ñu ko géntee daa mel ni ku sangu ba génn gàccoo aw sagar ñu laaj ko nan la sun boroom def ak yow mu ni leen ba ma jugee ci yéen ba léegi ñaata at la ñu wax ko ko mu ni leen booba ba léegi maa ngi ci ansaab xaw tuuti mahal ko bu ma saa borom su ko defee nu dolli nu dellu ci melow siyaare bàmmeel boo dee siyaar ko faatu da ngay taxaw ca kanamam xaw a tolloog ay tànkam wax lii assalaamu alayka diyaara muminin wa inna insha allahu bikum laaxiquun يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين منا أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أن الله وحشتكم وأمن روعتكم وجعل الجنة ميعادا بيننا وبينكم اللهم رب هذه الأجساد البالية والعذاب النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني اللهم إنك تعلم عددهم ورحمتك أوسع منهم فاغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم دادي جان سورة الإخلاص فكي يون أك بن أك إنا أعطيناك الكوثر أك آيات الكرسي lu ci nekk benn yoon yéene ko bu fekkee koo yaakaar ki moom barke la nga deltu ca gannaawam jublu penku ñaan yàlla subhanahu wa taala ci barkeem mu faj say aajo te nga ñaanal ko ak njéggal ak yërmande ak ngeureumul yàlla subhanahu wa taala ñu bari ci borom xam-xam yi neenañu ko ku siyaare nit ko baax wax li muy allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anbiyaika wa asfiyaika wa suhaybin wa suhaybin wa hamar ibn yasir wa imran ibn husayn wa tayfur ibn isa wa abdullah ibn mubarak wa bi haqqi walliha sadarih أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وتسلم لو نيان سونو بوروم دا نكو نانغو بو ديمي تي اي ارمير وار نانغاي تيولو باغا ديف سام خيل تي لنين كو ديم تي اي ارمير واخ لي سونو بوروم دا نكو بيندال ليمو نيافا نيك نييب تي تويابا ميغي ني اللهم رب هذه الارواح والاجساد الباليه والحسام النخره التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنه adxil alayha rawhan minka wa salaaman minni wax nañu ci ay nettali boo ko waxee danañu la bindal limub ñi masa faatu ak ñiy bëgg a faatu ci aw yiw lii mooy njot nit li koy jariñ mooy li mu jëf ci ak dundam waaye bu faatoo lu ñu ko defal ci lu baax dana ca jot moo tax di def lu baax di ko yéene ku faatu baax na lool bokk na ci li ñuy wax njot te mooy loo xam ni boo ko ko defalee du tàbbi sawara loolu am na ay xeet bokk na ca laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama juróom ñaar fukki junni yoon yoo xam ni doo ci boole sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci ludul yon yoon wu njëkk wa doo ko dog itam wala boo ko dogee nga tàmbuliwaat ko doonte noppi gu yàgg la bokk na ca bismillahi rahmaani rahim fukki junni ak ñaar ginnaaw boo waxee ahonsu billahi min asheytan rajim ndax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na ku ko def jënd na boppam dana am lu woote ci asamaan si ak suuf si ni diw sunu borom goreel na ko képp ku mu ameloon xaq na ko jël ci man seyxu ahmadu bnu husayn radiallahu taala anhu nee na amoon na wali wu mag wu nekkoon marok loolu moo doonoon wirdam bis bu set bokk na ci li musle ci mbugal li looy julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wasabi wa salama am na jigéen ju masafaatu am ko gént mu sonn lool ba mu xëyee wax ko alxasanul basriyu radiallahu taala anhu ginnaaw loolu alxasanu basriyu radiallahu taala anhu gént ko mu nekk ajjana mu laaj ko lu fi andi mu ne ko benn waye mo romb ci sunuy armel fekk nuy juromi junni ak jurom ben fukki junni mu julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam benn yoon yéene nu tuyaa baja ñu jéggal nu nun ñëpp ci barkeb julli googa am na ko masa faatu am ku ko gént laaj ko noo def ak ñaari malaaka yi mu ni ko damaa gis ku rafet xeeñ lu neex mu ñëw dox sama digg ñoom ma ni ko yaay kan mu ni ma sa boroom moo ma bindoon ci julli yi ngay julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa bi alihi wa sahbi wa sallama digal ma malay dimbule ci wépp tiis bari na lool ay nit ñu baax ñoo xam ni ba ñu leen gisee ci nelaw dañoo wax ni sunu borom mi ngi leen jéggale ci bëril julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam am na xamni bañu ni ko laajee dani malaaka ya alim salam bañu ñu xoolee samay bakkar dañoo fekk li ma julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama ëpp leen ñu bàyyi ma ma dugg aljana bokk na ci njot ñeen fukki lexlaas bokk na ci jang julli gi junni yoon moo xam kuy dund la wala da nga koy defal ku faatu allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa hadada kamalihi habibika njariñi ha shoraa am na lu mat fukki mbir ak ñaar yoo xam ni ku ko man sopp nañu bu asoro a yegsee nga def ba ca njëkk mooy woor bis bi ak julli ci ñeenti rakka ak jokk ci mbokk ak siyaar ci borom xam-xam ak seeti ci ku tawat ak ngelu ak raay bopp jirim te mooy ku amul baay te doon gone ak saraxe ci ak sangu ak yaatal sa njaboot ci lekk ak naan ak leewi say we ak jàng sóoratul ixlaas junni yoon ñaan gi ku ko jàng ci guddi gi njëkk ci at mi saytane du ko jige mi ngi nii allahuma anta al abadiyu alxadimu alxayu alxayum alkarimu alxannaanu almannaan wa haasihi sanatul jadilatu as'aluka fiha hismata min ash alsheytaan rajim wa ahwanihi wal والحون على هذه nafsil الأمارة bisu واستغالي بما يخربني إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وأستكفيك مؤنتها وشغلها